waaw ah, man maa ngi tudd Maam Góor Diop di jawriñ fii ci kër sëñ Bassirou Mbacke jiite daayiru Mour Sadikh bu kër sëñ Bassirou Mbacke. waaw sëñ Maodo de li ma la ci dénkoon léegi rek moom dama la moom nit la woon ko xam ne suñu borom da ko dimbale woon ci mu doon borom kilifa am kilifa muy sëriñ Falilou mu gëm ko lool doyloo ko lool yaakaar ko lool di ko dundee lépp lu muy ñaan rek sëñ Fall la koy ñaan lépp lu muy lu muy ko daan dogu nag tey moo waajur sëñ Bassirou mi nga xam ne moom ngeen ñëw ci këram tey Eh, bis bi bi yàlla dogalee bi biñ ci xëyee ba léegi liñ ci liñ ci nekk gis nga ko ñu ngi jàng alxuraan di di jàng ay xasida def ay basmala di togg ay bernde mbokki taali bi fi teew eh, sëriñ bi tamit mu ngi dundal bis bu baax a baax sëñ Mouride li nga ma ci laaj rek ko wax mooy moom eh, mbiram yoo mën a wax ndax def na Sénégal loo xam ne du ma ne kenn def ko waaye bëri ñu ko fi def ndax koo xam ne kii yaa njëkk a defar sa kër bàyyi ba mu gën a rafet ba mu gën a rafet kër ga nga dëkk sëñ Mouride lañ ko njëkk a gisee kilifa gu baax na ma ko nee moo ñàkk kijaan mu naa ma moom rek laa gis mu defar kër baayam ba mel ne panaan moom rek laa gis bàyyi këram moom suñ Modou laa gisee wàññeeku bënn ay ay forage defar ay dispensaires yoo xam ne bu ci gën lu ñu ci def ci xaalis mën na juróom benn fukki million mooy suñ Modou Bousso Dieng kooku mooy ki nga xamante ne bii moo daan faj Modou Modou yi xam nañ ko bu baax baax ab képp ab képp ko képp koo xam ne rek am nga jaaxle xam nga sëñ Modou kooku mooy sëñ Modou a dénk ndaw yi mooy roywaale ci roywaale ci ci ci ci jikko am ndax lépp bépp ndaw boo xam ne fonk ko sa wajur sa mujj du am du benn benn benn solo sëñ Modou li ko may lépp am dafa fonkoon wajur muy sëñ Fallou di dama doom bu bëgg doom su bëggee tekki ëllëg day fonk baayam fonk ndayam loolu la yàlla ko sëñ Modou biir kër ndeyam sant nañ ko biir kër baayam sant nañ ko am na ci kër sëñ Fall loo bu doon liggéey du ko xam ne lu toll na liggéey doo loo xam ne ci Sénégal ñëpp xam nañu ko lu mu war a ko yóbbu ay din Makka defar na defar defar na defar na ni ma na ko ci liggéey ko may su loolu liggéey du ko mën a am liggéey rek lay def yàlla mayoon ko ci ni ci xam ne ci tey mooy ëtt doomam ji nga xam ne mooy sëñ Basiru moom ko lool muy nituk lislaam di nituk diine amul ko xamal dara lu lu baax ci àdduna koo man di wax ci sëñ Bas dana ne baax rek la lay wax kooku di ëtt boobu nga ñëw tey kon loolu laa laa lay gën a ci jikko sëñ Modou di dénk ndaw ñu roy sëñ Modou ci nu loolu moo doon ci ko sëñ Modou man maam Góor Diop laa tudd di ndongal sëñ Bassirou Mbacké